boo demee ca paas 66 xëtu juróom benn fukk ak juróom benn danga ko fekk mu indi fa salaatu gii te mooy fukkeelu salaatu gi téere bi indi téere bi da indi ay salaat yu bari salawaat yi gën salawaat julli yi gën yi julli ci gën gi ci sangub sang yi julli yi gën yi ñuy julli ci yonent bi nga xam ne mooy sangub sang yi moom la téere booba di indi fukkeelu salaatu ba nag mooy sallallahu sallallahu ala muhammadin yusuf nabaxaani nee na al imaamu shahraani borom xam-xam sufiyanke bu mag la képp kuy liir suuf téere sufiyanke yi ko ku ñu respecté la ci waxtu suuf ba tey Yuusuf Dabaxaani nee na euh, alxaafisu saxaawi boroom xam-xam bu mag boobu imaamu saxaawi moom itam jëlee ci majj diin moom itam mu jëlee ci imaamu sama maam am sanat ba ci imaamu Samarxandi yi mu ne imaamu Samarxandi yi dégg na ci xadir ak Iliyaas ñuy wax ni am na ci bani Israayil ab yonent bu ñu doon wax asmawil wala ismawil yàlla da ko doon may muy ndimbal ci noonam yi am benn bis nag mu génn di wut ab noonam ñu ne kii daal ab njabar la daay ñëw ngir duñu njabar nañ yàq armem nañ ko def ci côté géej gi bu ko defee ñu gañe ko moom mu génn ànd ak ñeent fukki nit ñu def ko ci côté géej gi ñu xam ne kon lii ay war la ay saxaabaam ñoom àndaloon ay àndoom yi ne kon nu ñuy def mu ne songu leen waxooloo sallallahu ala muhammad ngeen wax sallallahu ala muhammad bañ defee loolu rek seen noon ya ñoo nekk ci côté bañ nekkoon ñoom ci côté géej gi ñoom ñëpp ñu lapp kon mi ngi noonu alxaafis saxaa yi ba tey nettali na am na benn waaye bu jógee woon saam ñëw ci yont bi ne ko yow yont bi yàlla bi sama bàyyi di daa màggat te dalaa bëgg a gis mu ne ko indi ko mu ne ko moom kat daa gumba mu ne ko boo demee ne ko na saxal juróom-ñaari guddi di wax sallallahu alayhi wa kon dara ma gis ci gént mu ne mu def loolu mu daal di koy gis ci gént li yëpp nag du samay wax ku dem ci afdalu salawaat te imaamu Nabahaani def ko di boroom xam-xam bu màgg page 66 da nga ko fekk lii may wax moom sallallahu ala muhammad nag bari na ay lim bari na ay lim yu ñu ko mën a def kum neex nga def ko nga di ko def limu 66 ci limam yi la kum neex nga di ko def limu 92 ci limam yi la. comme neex nga di ko def téeméer ci limam yi la kum neex nga di ko def cent quatre ci limam yi la kum neex nga di ko def cent dix ci limam yi la kum neex nga di ko def cent onze ci limam yi la kum neex nga di ko def cent quatorze kum neex nga di ko def trois cent soixante huit bi nga xam ne mooy valeur numéro numérique am comme neexit nga def ko tarbiya am na ñaari façon tarbiya am na tarbiya boo xam ne da nga koy def cent vingt quatre mille nga xam ne mooy limub anbiya yi ak rusul yi limub prophète yi ak envoyé de jë yi loolu benn la ci comme neexit nga jël trois cent soixante huit ko par trois cent soixante huit mu jox la cent trente cinq mille quatre cent vingt quatre su ko defee moom itam loolu aw yoon la. ci tarbiyu dama juum ci lim bi mu wax 368 fois 368 moo la jox 135 424 135 424 kon 368 fois 368 moo la jox 135 424 damaa jàpp ne damaa juum ci lim bi waaye juum ma ci lim bi moo njëkk a wax ak ñaareel bi ak ñetteel bi lépp moom la cent trente cinq mille quatre cent vingt quatre nga xam ne da nga nekk ba lim boobu matt nga tarbi ko nga soogoon jël nag lim bi ngay saxal ci lim yi ma wax kum neex nga di ko liggéey si limub six cent quarante quatre kum nga di ko liggéey limub junni fois kum neex nga di ko liggéey limub cent onze kum neex nga di ko liggéey deux mille deux cent vingt deux kum neex nga di ko liggéey li mu trois mille trois cent trente trois kum neex nga di ko liggéey li mu quatre mille quatre cent quarante quatre kum neex nga di ko liggéey cinq mille cinq cent cinquante cinq kum neex nga di ko liggéey six mille six cent soixante six kum neex nga di ko liggéey li mu sept mille sept cent soixante dix sept kum neex sax nga di ko liggéey li mu douze mille quatre cent nga xam ne fukki fan yoo am am cent vingt quatre mille. kon mu ngi noonu lépp lu ci waay man te man koo saxal rek lu tuuti tuuti ak lu mu bari bari baax na li ci am solo nag mooy saxal gi waaw saxal gi fi toll nii boo ci doon def bisu jot rek téeméer bisu jot rek téeméer weer wi da ngay am 3000 ku ci saxal bis jot mil junni weer wi dangay am lu jege 30 000. kon lu ci waay mën a saxal na ko ci saxal ba noppi nag di ko def ngir jëmmi yàlla di ko def ngir sopp yorant bi sallallahu alayhi wa ngir fës yéene jëfe ndigal li yàlla wax ne yéen yi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen julli te sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne boo ko waxee benn yoon rek ubbil sa bopp juróom-ñaar fukki buntu yërmaande yàlla bëgg la jullit ñi bëgg la naa feq rek a lay bañ ah loolu nag bépp jut bu ko xam lu mu ci man war na ko caa def kon mbokk yi lii rek dañ doon wax ak yéen ci sallallahu ala muhammadin xam naa bi may wax euh, lim yi da am lim ma fàtte woon euh, tam am solo lool kum neex nga saxal ko 368 te loolu mooy euh, comme neex nga saxal ko 368 te mooy ñeenti 92 waaye comme neex it 368 bii nga multiplier ko par 4 te mooy limu baat yi moom itam moo lay jox 1472 ci ay limam la 1472 nga xam ne mooy 368 fois 4 bi nga xam ne mooy limu baat yi waaye bu la neexee tamit nga multiplier ko limu. Euh, araf yi muy quatorze araf yi ma waxoon léegi boo ci bërul alifuk ala quatorze araf moo lay jox cinq mille cent cinquante deux loolu tamit ci lim yi la lim yi nga xam ne day dox ci jëmmi salaatu bi bu la neexee nga moom itam nga boole limub araf yi ak limub baat yi muy dix huit ndax araf yi ndax araf yi quatorze la baat yi quatre la muy dix huit nga di ko liggéey loolu moo la jox six mille six cent vingt quatre juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak ñeent ak juróom ñaar fukk ak ñeent kon mbokk yi sallallahu ala muhammadin mi ngi noonu di salaatu ko gàtt te bari njariñ bari nga neel yàlla nañu yàlla boole ca ña nga xamee ni dañuy julli ci yent bi sallallahu alayhi wa te di ko jullee julli mu sell te di ko julli ngir jëmmi sunu boroom dañu xam ne yonent bi nee na yowmal xiyaam ku ëpp lu mu doon julli ci man kooku moom may gën a jege yowmal xiyaam ci ëpp lu mu doon julli ci man mooy ëpp ay soxna ci àjjana am na ñoo xam ne nee na sama mbalka moom nga xam ne ku ca naan doomar naa leen di xàmmee ci baril gañ daan bari la ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala